سلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وسلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا أنا aawuzu billaahi min asheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla jul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ni ko baaxoo def rek eh, ñaari présentation conférencier dina tax ñiy déglu seen dégg-dégg ak seen taataan eh, gën a màcc ci li ci présenté di wax ak ñu leen di présenté sunu mag la bokk ci xadara bi ku nekk dégg na sëriñ Muniru Saar bu buudi jarbaab sëriñ Babacar Si soxna Fatimata Si taaw sëriñ Xaaji Malik jur ko ak di sëriñ Ahmad Si Saar bokk ak sëriñ Muniru Saar benn bàyyi di rakkam mooy papay sëriñ Cheikh Jaan Saar mii nekk itam bokk ci waa daara ji bu ma nee waa daara ji majalis bi day dugg ba jeex waaye itam ci wàll tubaab yàlla def may ko ci ay diplôme yu bari mu bokk ci ndeyjoor ñi nga xam ne Serigne Moustapha Sy eh, bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si bu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu eh, bàyyi na ko xel wóolu ko mu bokk ci ñi nga xam ni tabarakallahu ñu ko wër la eh, mu di ko sant mission yu baree bare sëñ ma xar yi waroon na ñëw tey pour def si thème bi muy rôle social de daayira tabarakallahu yebal ko kon li sëñ Aliou Diagne waxoon sànq ne yaa baari al xaw si bariyan lay sa yox sinuha laa tufsidanha wa atil xawsa baariha mu mel ni tey fett gi jox nañ ko kon ki ñu ko war a jox su ko defee ci tënk ci gàttal kii mooy ki war a waxtaan ak ñun ci rôle social de daayira mu di a Ahmed Tidiane Sarr eh, di doom ci sëriñ Ahmed Sy Sarr di rakk ci sëriñ Mouniou Sarr bi nga xam ne jabaab sëriñ Babacar Sy la su ko defee kon sëriñ Cheikh Fall ya taw fadal mashkuran ñaan yàlla defal ko tawfiq wasalaamu aleykum wa ركع على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين إنه لمن دواعي السرور والغبدة والابتهاج أن نشارك في هذا اللقاء الميمون في هذه الجزيرة التاريخية التي كانت بالأمس البعيد بؤرة الظلم والضغينة والشحناء فأصبحت اليوم كبقية أصقاع البلاد محررة من براثن الطغاة وذلك بفضل الجهود التي بذلها الأجداد الذين أذكوا جزوة التوحيد في البلاد وأسسوا الطرق والدوائر حفاظا على تراث النبي صلى الله عليه وسلم العريق ونشروا تعاليمه السمحاء فانفكت القيود وتحطمت الجدران العادلة بين الطبقات والأعراق والفئات وتشربت النفوس بروح الأخوة والتضامن فأصبح الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأشكالهم وأوطانهم مرتبطين بروابط إيمانية ومتماسكين بوشائج روحانية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والحمد لله رب العالمين بقي yi ñu ci nuyoo bi gën a tedd mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyo bi sang yu tedd yi nga xam ne ñoo fi nekk di suñuy sëriñ di suñuy doomi sëriñ di suñuy sëti sëriñ di nuyu mboolem autorités yi nga xam ne ñoo teew fii ci barab bi di ziyaara bu baax a baax imaamu gox bi di ndokkeel ñi nga xam ne ñoo am initiative bu rafet bii comme waxtu wi dafa xaw a tuuti li ñu sant di ndokkeel bu baax nag di sant Sidi Ahmed Sarr tabaarakallah jazakallah xeyran li ñu sant ci waxtaan bi mooy rôle social des daayira xëy na sax du ñu mën a dugg comme niñ ko tàmmee ci tem di wax cosaanu daayira di ca yàgg ak di wax fu mu jóge donte ñi fi jaar am nañu ko tudd waaye liñ mën a wax rek mooy daayira cadre la ni l'islam nekk cadre cadre bu njëkk bi moo doon sharia yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi demee mag ñi ci seen yitte sos tariqa ñuy laaj sax kon sharia bi dafa doyul woon lu tax ñu sos tariqa ñu ne déedéet sharia bi doyoon na waaye ñu nga koy déggee dañ ne jamono ba nga xam ne nit dafay dàq kéwal ci àll bi ba jàpp ko dikk rendi ko ci biir këram kooko bu lekkee kéwal ga bu ko neexee mu tëdd ndax la mu dépensé woon ci énergie bu lekkee kéwal ga loola lu ko remplacer lay wut waaye ñu ne kuy dund ci jamono boo xam ne climatiseur mooy seral fa ngay dund doo yëngatu dangay jox ñaari junni sa soxla mu dem ci marché bi jënd ndawal dikk togg ko kooku boo wëlbatikuwul dugg ci salle de gym wala nga def sport loola dana transformer wu cholestérol gaañ la cholestérol bi am ci yaram nag nga xam ne mooy gaañ nit am na beneen cholestérol bu ruhaniya kala bal ala qulubihim ma kanu yaksibun yaksibuun moo tax mag ñi nag bi bànneex yi lëndëmee xol yi lëndëmal xel yi ñu créé waat beneen organe cadre boo xam ne dafay setal ruux yi moo indi daayira ci biir daayira boobu ci biir tariqa ba kon tariqa Sid Ahmed Tijani radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jox ko tariqa boo xam ne nii moo ndar moo ndar képp tariqa yëpp ndax yonent bi moo ko joxal boppam waaye bi ñuy liggéey ci biir tariqa tamit ci la maam Seydil Hadji Malick ñëwee liggéey ci sëriñ bu tedd bi wax na fii léegi ni méthode bi Maodo amoon ci daawa ak daawal islamiya teg ko ci jàngale teg ko ci ubbi jàkka waaye bi sëriñ Babacar dikkee moom mu ne léegi mystique de proximité lay def te mooy euh, ki nga xam ne nii mënta ñëw nañu dem fekki ko mu sos daayira te loolu dafa am lu am solo lu tax ndax maam Seydi El Hadj bi mu fi nekkee société bi nga xam ne nii mooy société sénégalaise bi dafa nekkoon loo xam ne ñi ci ëpp ci monde rural bi lañ doon dund li ñu tuddee bourgeoisie bi nga xam ne nii moo commencé woon di installé ci cité yi amagul woon mais Serigne Babacar moom bi muy ñëw loolu commencé na jël forme kon nit ñi pour nga jariñ leen il faut nga indi laal leen beneen forme d'organisation boo xam ne moo leen di gën a jege ba ka